juróom ñett fukk wax yu dëgër te dëgg salaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. sunu mbékk rëy na lool tey ci li nu mën a dellu si ngir dégtal leen seen émission bii di yoonu njub ci sunu njàng mi weesu gisoon nanu ni almasi bi yeesu dugge woon dëkku yerusalem li ci doy waar moo yéesu xamoon na xel ne. yerusalem moo di fa sëriñ su mag sa ak xutbakat ya nekkoon ñoom ñi mànkoo woon ci boom ko yeesu xamoon na lépp li ko waroon a dal waaye teewul mu dugg yerusalem ndaxte deeni sarax suy dindi bàkkaar a taxoon mu juddu te ay fan rekk a desoon laata ko sëriñ sa di jàpp ngir reylu ko kon nag mbokk yi fu ngeen mën tollu léegi nu ngi leen di ñaan ngeen dékk nu seeni nopp te déglu ni borom bi yéesu arto woon kilifay diine yawut yi te gëdd leen ndax seenu naafeq ak seen coxor wax yi nu nar a dégg tey wax yu dëgër te metti lañu waaye ni ngeen ko xamee léeg-léeg dëgg gi noonu lay mel ci lu wóor dëgg kaani la ni nu ko gise woon ci émission bi weesu bés bu nekk yeesu doon na jàngale ca kër yàlla ga nekk yerusalem te it bés bu nekk sëriñ sa ak xutbakat ya doon nañu ko wuta reylu waaye xamuñu woon nan lañu ko mën a defe ndaxte nit ñépp a ngi doon déglu yéesu ak tekk ak teey bañ benn baat rawleen leen naka noonu ci linjilu luk saar ñaar fukk mbind mi nee na noonu sëriñ su mag sa di ko yeeru daldi yónni ay nit ñu mbubboo njub sas leen ñu fexe ko jàpp ci ay waxam ngir jébbal ko boroom réew ma yor kilifteef ak sañ-sañ ñu daldi ñëw ci yeesu ne kilifa gi xam nanu ne li ngay wax te di ko jàngale lu jub la amuloo parlaqu waaye dangay xamle yoonu yàlla ci bu wóor wax nu ndax jaadu na nuy fay buur bi sesaar galak wala déet waaye yésu xam na seen pexe ak seen nafiq mu ne leen lu tax ngeen bëgg ma fiir indil leen ma posetu dinar yoon ma seet ñu jox ko poset bi noonu yéesu laaj leen kan lañu def nataalam ak turam ci poset bi ñu tontu ko César noonu mu ne leen jox leen nag César li César moom te jox yàlla li yàlla moom noonu mënuñu ko woon a jàpp ci waxam ci kanamu mbooloo ma ñu waaru ci tontoom ba wedam bés boobale ay saduseen ñëw ci moom saduseen yi nag ñoom gëmuñu ne ndekkite li am na noonu ñu laaj konaan kilifa gi muusa ne woon na ci tawret boo xamee ne góor dee na te amul doom na rakkam donn jabaram ngir sàkkal magam njaboot amoon na ci nun nag juróom ñaari góor ñu bokk ndey ak taaw ba sëyoon na faatu rakk ja donn jabar ja ndaxte amul woon doom ñaareel ba ak ñetteel ba def noonu ba ci juróom ñaareel ba gannaaw ñoom ñépp jigéen ja faatu ca ndekkitale nag jabaru kan lay doon ci juróom ñaari nit ñooñu ndaxte ñépp jël nañu ko ni jabar waaye yéesu tontu leen ne yéen ngi cik riir ndaxte xamuleen mbind mi mbaa kàttanu yàlla ci àddina sii góor ñi ak jigéen ñi dañuy sey waaye ñañu àtte ne yeyoo nañu bokk ci dundu ëllëg ak ndekkitali kenn du am jabar kenn du am jëkkër dafa fekk ne mënatuñoo dee ndaxte dañuy mel ni malaaka yi ay doomi yàlla lañu ndaxte doomi ndekkitali lañu te musaa sax wone na ne néew yi dinañu dekki ci saarum garab si foofu musaa woowe na fa borom bi yàlla ibrahima yàllay isaaxa di yàlla yanqoba kon nag nekkul yàllay ñi dee waaye yàllay ñiy dund la tey yàlla tax ñépp di dund bi nga xamee ne mbooloo ma dégg nañu loolu ñu waaru ndax li mu jàngale gannaaw gi farisiyen yi yég nañu ne yey na sadusen ya kon nag ñu daldi daje noonu kenn ci ñoom ka nekk xutbakat fexe ko fiir mu laaj ko kilifa gi ban ndigal moo gën a màgg ci yoonu musa yéesu tontu ko ne na nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp loolu moo di li jëkk te ëpp ci li yàlla santaane te ñaareel bi noonu la mel na nga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ñaari ndigal yooyu tënk nañu yoonu Musaa wépp moom ak waxi yonent yi bi farisiyen yi daje nag yéesu laaj leen lu ngeen xalaat ci almasi bi kan la nekk sëtam ñu tontu ko daawuda noonu yéesu ne leen lu tax nag daawuda bi muy wax ci kàttanu xelu yàlla di ko woowe boroom bi ne boroom bi wax na sama boroom toogal ci sama ndeyjoor ba kero may daaneel say noon ci sa kanam gannaaw daawuda nag woowe na ko boroom bi nu muy nekke sëtam ci kaw loolu kenn mënu ko tontu genn kàddu te li dale ci bés booba kenn ñemeetu ko laaj dara gannaaw loolu yeesu waxoon na mbooloo ma ak taalibe ya ne leen xutbakat yi ak farisiyen yi ñu ngi toog ci jalu musa wante buleen roy seeni jëf ndaxte dañuy wax waaye duñu ko jëfe dañuy takk say diis yan leen nit ñi waaye duñu ko nangoo laal sax ak seen cati baaraam dañuy def seeni jëf yépp ngir nit ñi gis leen di takk ay téere yu rëy tey rëyal seeni laari mbubb ci reeri xew yi toogu yu yiw yi lañuy taamu tey féete kanam ca jàngu ya dañoo bëgg ñépp nuyu leen ak ñaari loxo ca pénc ma di leen woowe kilifa gi waaye yéen bu ñu leen woowe kilifa gi ndaxte kenn rekk moo di seen kilifa te yéen ñépp ay mbokk ngeen te bu leen tudda kenn seen baay ci àddina ndaxte kenn rekk moo di seen baay ki ci kaw bu ñu leen tudde it ay njiit ndaxte kenn rekk moo di seen njiit mooy kirist ki gën a màgg ci yéen mooy ki nangoo nekk seen surga ku yëkkatiku dees na la suufeel kuy suufeelu ñu yëkkati la yéen xutbakat yi ak farisiyen yi feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi tëj nguuru yàlla aji kawe ji ci kanamu nit ñi yéen du ngeen ci dugg te du ngeen bàyyi ci bëgg a dugg mu dugg ci yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi wër géej ak suuf ngir sàkku benn taalibe ba noppi ngeen def ko nitu safara ku leen yées ñaari yoon yéen xutbakat yi ak farisiyen yi feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi sàkk asaka ci naana ak anet ak kumin te sàggane yi gën a màgg ci yoonu muusa maanaam njub yërmande ak ngëm loolu ngeen war a def waxuma nag ngeen bàyyi la ca des yéen njiit yu gumba yi yéen a ngi segg wallax njaan tey wann giléem yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naa feq yi ngeen torox ndaxte yéen a ngi setal bitib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dafa fees dell ak càcc ak ëppal farisiyen yu gumba yi jëkk leen a setal biir kaas bi ak ndab li ngir biti bi itam set yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naa feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi mel ni bàmmeel yu ñu weexal ci biti am nañu melaw wu rafet waaye ci biir dañu fees ak yaxi ñi dee ak tilim ju nekk yéen itam ci gistal da ngeen di mel ni ñu jub waaye ci seen biir dangeen fees ak naaféq ak lu bon yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naaféq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi tabax xabru yonent yi te rafetal bàmmeeli ñu jub ñi te yéen a ngi wax ne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 wax nu kañ la loolu di am te luy tegtale ne yaa ngi ñëw te àddina di tukki yeesu tontu leen ne moytu leen bu kenn nax ndaxte ñu bari dinañu ñëw ci sama tur ne di kirist te dinañu nax ñu bare dingeen dégg ay xare ak coowi xare wattu leen bu leen ci tit ndaxte loolu war na am waaye booba mujjug jamono jotagul xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew xeex ak meneen réew dina am ay xiif ak ay yëngu-yënguy suuf ci béréb yu bare waaye loolu lépp mooy ndoortel metit yi mel ni jigéen juy matu bu booba des na leen jébbale metital leen rey leen te xeet yépp dinañu leen bañ ndax sama tur bu loolu amee ñu bare dinañu dàggeeku di boolente tey bañante te it ñu bare ñuy mbubboo turu yonent dinañu feeñ ndax nit ñu bare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 ànd ak kàttan ak ndam lu rëy dina yónni ay malaakam ak baatu liit bu dégtu ñu dajale ñi mu tànn ci ñenti xibla yi fa asamaan dale ba fa mu yem boo xamee ne doomu nit ki mu ngi ñëw ci ndamam ànd ak malaaka yépp booba dina falu ni buur toog ci jalam bu solo ndam bu booba des na dajale xeeti àddina yépp ci kanamam te dina leen xaajale ni sàmm di xaajale xar yi ak bëy yi mu teg xar yi ci ndeyjooram bëy yi ci càmmoñam noonu buur bi dina wax ñi féete ndeyjoor agsi leen yéen ñi sama baay barkeel jël leen nguur gi ñu leen waajal li dale ci njalbeenu àddina gannaaw loolu dina wax ñi ci càmmoñam sore leen ma yéen ñi alku te dem ca safara sudul fay si ñu sàkkal seytaane ak ay malaakaam noonu ñii dinañu soobu ci mbugal gudul jeex waaye ñi jub dinañu tàbbi ci dund gudul jeex amin kon nag mbokki déglukat yi fii lañu wara yem tey dégg nanu ni borom bi yeesu gëdde woon kilifay diine yi ndax seenug nafeq dégg nanu it ni mu arto woon ay taalibeem ci mbirum ñi naroon a ñëw ci gannaawam mbubboo tur yonent ba nax nit ñu bare te ci mujj ga dégg nañu ni borom bi yeesu yëgle woon ni mu nara dellusee ci àddina jóge asamaan ak ay malaakaam yu ànd ak kàttan ngir àtte ñi bañ a déggal xibaar bu baaxu yàlla ci lu jëm ci almasi bi waaw wax yu dëgër lañu dégg tey waaye yemuñu ci dëgër rekk waxi dëgg lañu tamit te naka noonu wax yu neex lañu ci noppi ku leen gëm ndaxte borom bi yéesu nee na dingeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi nu ngi leen di jox dox daje beneen yoon ngir euh, gis ni benn ci taalibe yéesu yi deme woon ca sëriñ su mag sa ngir wor yéesu jébbal ko ci loxoy ñi ko bëgg a rey su fekkee ne bëgg ngeen waxtaan ak nun ci li ngeen di dégg ci émission yoonu njub yi mën ngeen nu yónnee seen adresse ci mbind mu leer te dinañu leen boole kenn ci sunuy mbokk yi dëkk ci sa diwaan wala ci sa gox bi nga dëkk ngir nga waxtaan ak moom ci kàddu yàlla gi nun nag sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li borom bi Yeesu wax bi mu naan yéen a ngi cig réer ndaxte xamu leen mbind mi mbaa kàttanu yàlla wante dëgg gi dina leen goreel